Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke ba yaa gëñi bi koon yow nu may Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke Mbàkke ba nañu gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yarnu yornu bu ñu réew sëriñ saali yarnu yornu bu ñu réew ay Mbàkke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax ñu ne waaw ngir bëgga am sa yërmande sëriñ saali Mbàkke te nga xal yoon wi ba mu weex ñu di ci aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis te néegi yërmande te nga fegal nu deegu gaaw ak ki gëm ak deegu ñaaw te mu sax ci loo wax nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula Sëriñ yóbbu nu jannatul mooy kër ga amul tiis balaa te boole noo kulal malaa kulal malaa mu wan gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci yow ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci yow ba dee ay sëriñ Saaliw nga sax nun bañ dee benn ëdër mëtaate ngir yàlla sa yërmande sëriñ Saaliw te nga may nu wër gën walaal ay mbàkke bandi yot loo mën laal ta nga defal nu gaañu ku laal nu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan nokkulal malaa kulal malaa mu wan nu gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci ba dee ay sëriñ Saaliw nga sax nun bañ a dee len nu ëllër ngir yàlla ak sa yërmande sëriñ Saaliw te nga may nu wër dën walaal ay mbàkke bandi yot loo mën laal ta nga defal nu gaañu ku nu laal nu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan li may ñaan jalla jalaaloo ñu dem bay ci laay yàlla nu àndandoo nanu àndandoo ba ca bay ci laay salaamaaleykum Mbacke na nga def ñu ngi lay siyaar bu baax Mbacke na nga def mbaa yaa ngi am jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah wax moom mooy kii wax kii ñu waxal moom mooy moom mooy soxna sëriñ bi di soxna bi ba pare di xaru si bi nag nekk ku baax ñun wax dëgg yàlla di koy tuddee soxna soxna Asu Mbakke di doom ci ci ci ci sëriñ Abdou ñu ngi lay jox sa wàccuwaay soxna si naka yi tey mbaa yaa ngi am jàmm rek doo gisee bés bi tey. ah bés bi kay xanaa kontaan rek. Mhm. dañuy daal daal seen seen li bëgg rek yàlla na ko suñu saali def bu baax. amiin amiin ndax lii xéewal la. Mhm. dëgg yàlla rek. Mhm. dégg nañ lool. yàlla yegg ak jàmm. amiin amiin amiin waay amiin bàcc. ñu yéene yéene daal yéene bi bëgg daal seen saali. ba di ko def suñ ku ko gis xam ne suñu suñu daal bëgg la seen saali lool. waaw. am na ci yéen a tamit. Mhm. fonk suñu seex lool nag. Mhm. ñu ngi ñaan daal yal na jumaa ji àgg ak jàmm ak salaam. amiin dañ fekk ko te tal ko. amiin amiin waay Mbacke amiin waay Mbacke seex ñëw fi ubbi ko nag. amiin Mbacke amiin Mbacke amiin jërëjëf amiin Mbacke. Ferifaan yóbbu nu jannatul ula mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal mala kulal mala mu wan nu gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci yow ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci yow ay sëriñ Saaliw nga sax ci nun bañ a dee len nu ëllër mata dee ngir yàlla sa yërmande sëriñ Saaliw te nga may nu wërsëg walaal ay Mbàkke bandi lo loo mën a laal tanga defal nu gaañu kunu laal kunu tey kii mooy kii soxla sëñ bi di doomu sëñ xaarim awa ba mu sëñ baara mu sëriñ Tuubaa waaw xam nga lii gën bi lii dara gënu koo yéeme waaw waaw jàpp ci liggéey bi nii waaw noo gisee noo bëgg ci di liggéeyal Serigne Touba mu def ko liggéey di ñaan yàlla àgg ak jàmm ñu dund ba di ko intégré amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke bëgg nañ lool bëgg nañ lool amiin Mbacke amiin Mbacke amiin salaamaaleykum yaa amati kan ngi lay siyaare baax kan kan kan ñu ngi lay jox sa wàccuwaay baax amin amin kan amin amin kan amin amin kan amin amin kan amin amin amin yaa amati amin amin amin amin amin amin amin kan amin kan amin amin ya amati amin kan amin kan ko ko kooku ñu la waxal léegi mooy way juru moom mooy wu jigéenu sëñ bi sëñ bi yàlla na suñu borom ci doole sëñ Tuubaa Sëriñ gaaña fi nekkoon yaa gëñi di koon mi nu may kun fa yakoon sëñ Jaraaf ñu lay siyaare baax donc la sant rek. sant rek de. sant Serigne Touba bu baax a baax. jërëjëf asalaam. macha allah asalaam asalaam. kooku soxna Mami Diagne lañ koy wax. noo gisee bis bi noo gisee bis bi. dëgg la waaw ku ma waaw ku ma jërëjëf. jàmbaar nga. la ilaha illallah Mustafa la ilaha kooku mooy sëñ Bouba Ndiaye gars yi ñu ngi lay jaajëfal baax jaajëfal waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la Sëriñ Saaliw Mbàkke ba nañu gaañe fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yarnu yornu bu ñu réew sëriñ saaliw yarnu yornu bu ñu réew ay mbakke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax ñu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande sëriñ saaliw mbakke te nga xam yoon wi ba mu weex ñu di ci aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis te néegi te nga fegal nu deegu gaaw ak yekki gëm ak deegu ñaaw tem Saaliw Mbakke Sëriñ Saaliw Mbakke Sëriñ Saaliw Mbakke ba gaañe fi nekkoon jàpp la yàgg ñi di koon yow mi nu may